suñu ñaar waajur di sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi eh, di wax ne tey teewaay bi li ko waral mooy ku ne xam nga ne dafa am lu xew si réew mi te li si réew mi mooy am te mbiru suñu borom la te lu borom bi dogal kenn mënu si dara ñu waroon def open press te ay jullit lañu am na loo xamante ne bu dalee suñu kaw dinañ leneen lu dul ay open presse wala leneen lii nag dafa mënta ñàkk li tax mënta ñàkk mooy faaw ñu jaale ñi nga xamante ne nii xam nga ñoom ñoo ñàkk seeni njaboot di ko jaale président de la république di ko jaale ñëpp di ko jaale monde entier di wax ne tey li am nekkul loo xamante ne lu ñu gën a waaye lu borom bi dogal jàmm nu si dara di ñaan yàlla suñu borom bi rek. accident yi xam nga waaw mu mu ñu yebale ko foofu te dee mënut a ñàkk mais yàlla ñu yàlla mooy gudd fan ak wér-gu-yaram rek may ko bépp doomu aadama may ko mbooloo mu jullit. Uh-huh. waaw man li may jaajëfal bu baax li wax moom sa xel day fàttali comme ni nga waxee gannaaw li ñu jàll ñu sa allah géej waaye lu am ñëw mu nekk ci seen kilifa yéen ñëpp mais tey dañuy si li nga xamante ni moom nga muy point de pression mais xool sa combat ki nga xamante ne mooy Sokh ñëpp si Sokh moo la ëpp man la loolu mën wax loo xamante ni bu abdoulaye Symbile yéen ñaar loolu ngi nuyu suma grand moom nga xam ne monument Guédiawaye la xaj na sànq doon doon nuyoo noonu pour ñaanal ñi génn àdduna mais faaw ñu nuyu leen ñoom tamit ku si mel ni suma grand Lirou maa koy nuyu bu baax a baax a baax. di nuyu Assane Pël suñu grand nga xam ne moom seetaanuñu si dara di nuyu suma doomu nday booy sëy suma tàmbur majoor Cheikh Ibrahima maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp daal saal bi ñu fi teew ñëpp maa leen di nuyu xam nga soq suma adversaire la comme yeneen adversaire yi làmb moo ñu boole te dañuy bëre incha allah la 14 yàggatul doole nag du lu ñuy wax rek doole lu ñuy jëf la te yaakaar naa ne am benn volume bi rek taxul nga am doole quoi waaw ñu ngi xaar la 14 daal waaw maa ngi li nga noonu am na solo mais na bëgg nga wax supporter loo leen di jox comme confiance. supporter yi li ma leen di jox comme confiance ñoom gis nañ ko mooy wàllu entraînement yi tey bu fekkonte ne si wax kase laay jëw laay def maanaam ñoom du am confiance mais dañoo gis coono yi ma daj dañoo gis li ma liggéey. parce que combat bi dafa ma jaral lu bari combat bi dafa ma jaral lu baree baree baree baree dafa ma jaral ma dëxuñu liggéey parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo nekk suma ginnaaw su ma jugee ñu jug kon duma def lu dul góor góorgóorlu waxuma sax la 14 mais li nekk suma kanam si làmb ma rayante si parce que su jugee dañuy jug loolu kase la jaajëf. sa gis nañu communication bi nga xamante ne nii soxku def na ko nee na bis dalay jaay doole ñu gis li nga xamante ne tamit am na ci jamono ji diggante Pikine Géejawaay ci côté bëre mun na ne li nga xamante ne jamono ji Pikine moo li mooy mooy yor li nga xamante ne mooy ndam ci côté Géejawaay est-ce que di li nga xamante ne mooy combat bu Géejawaay si ci capital si diggante moom Pikine lan ngeen wax ci loolu waaw maa ngay fay di la bu baax ñun ay doomu géejawaay lañu ku xam géejawaay xam ne géejawaay yàgg naa duma Pikine làmb nag moo baaxee woon nii day am gudd yoo xamante ne nii li ndongoloo di wax ndaanaan bu daanoo foog coow li bari ki daan mooy ndaanaan mooy Balla Gaye 2 mais li si des mooy sama diggante ak soox prolongation bi la ñu wax yàlla si yàlla yóbbu ak jàmm. lan wax si li mu wax ne man góor du ma jaay doole suma àdduna. li ma wax loolu dara du ko dindi bi ma nekkee xale ba ni ma toll nii góor musuma jaay doole góor musuma jaay fit te soo ko amul doole bu ma jaay li may wax daal mooy insha allahu rabbi la 14 yàlla may ñu ndam seen guy te insha allahu rabbi dañ koy am bu neexee yàlla. gis moom soog dugg na Guédiawaye am ko fi defet mu dee Guédiawaye mu su fi am defet boobu léegi nee na duggaat naa Guédiawaye ne moo war a man taloo yi ma daan Pikine sooku daanul ñooñu géejawaay man dama daan Xaadim Sarr mu nekk Pikine nekk champion Pikine kenn daan ko fa bëri daan fa naaru sokaas daan fa laay bee moom li ma ko wax rek dama koy daan ba pare joxaat ko ndigal comme dafa bari wax dinaa ko daan jox ko ndigal dafa am loo xamante ne moo ñu ñor fi mu toll nii mooy comme ni ko gars waxee rek waaw ndam bi rek incha allah ndam agressé Marley waaw loolu nañ bàyyi ba le jour si la 14 yàggatul de tey la mardi la 14 yàggatul yàlla si yàlla yóbbu jàmm soxul li muy wax si làmmiñam la yam déggoo ma de du ko jëfee te insha allahu rabbi xeex maay bëre maay duma maay daan incha

fekk su ma mag nekkoon si réparé daaw ak ñoom Pape numéro un ma ñëw dugg si sama yaay ma ñëw ne ko damaa am combat. ne ma moom nag fitam moo koy rey ndax bi mu nekkee xale ba léegi lépp lu mu mës dugg rek fitam lay demee quoi daaw daaw sax bëreegul grand combat nga naan da ngay bëri grand combat. ma dinaa bëri grand combat te dinaa daan te noonu la demee kon luur jaaxaluma mbapat moo mës dem poids luur laay bindu. comprend nga amul benn poids lourd bu ma jaaxal soxu poids lourd yi ma bëral ñoo ko ëpp doole foofu laaj Pythagore daf koo jàpp duma ko daan ko jàpp magam duma ko daan ko bi mu daanee soxu si man la ñëw waaw ah, kon soxu dama moromam si leer benn journée moo ñu boole rek te incha allahu mu jeex bu neexee yàlla. ñuy nuyu maanaam champion bi Lirou Diane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu assistance yëpp di nuyu bu baax a baax Marley nga jëm bis bu am solo si géejawaay mu ne bis bu am solo si géejawaay géejawaay dañoo am si lu ñu jógee ñu leen métti lool métti képp ki nga xamante ni champion bi biir géejawaay nga jëloon fii ki nga xamante ni mooy lépp ren peut-être moom dagg jël bu rëy bi nga ñëw jël ki nga xamante mooy soq mu jaral la nga tukki def fi nga xamante ni mooy Maroc deux mois lan moo waral tukki adversaire yi ñoo yemul wala dafa am na ngay bàyyi xel euh, di la nuyu bu baax a baax li waral ma tukki lu Sokh li waral moo tukki mooy staff yi ñoo gis ne dama war a tukki moo tax ma tukki dem Maroc def fa deux mois yu manqué parce que li ma fa waroon def sax defuma ko dañoo amoon signature loolu moo tax ma dagaat beneen billet ñëw. mais comme li may wax rek soqu taxul ma may daj dara man li tax may daj dara mooy samay supporter li tax may daj dara mooy waa géejawaay mhm. li tax ma rey sama bopp mooy ñi nga xamante ne su ma jugee ñu jug mais soq taxumaa jug du xeeb du dara parce que bi may bëreek na ko réel la bi ma waxee na ko taxumaa taxumaa jug kenn contesté wul daf ne mënu koo daan rek comprendre nga mais soq ku ne xam na ne àgguma fii si bëri mhm. te bu la 14 incha comme question bi nga laaj moom laa tontu nii bu la 14 dinaa ko si duuma dinaa ko daan nga xam ne ñi si kanam. ñoo tax may rayante mais du soq ndax dafa am feneen fu ma teg sama bët waaye. sa slogan yow mooy maa ay si luur loolu la waa géej moom keroog ñu gis ni euh, mu yéen ñaar saa yoo laalante dana la daan fukki jël yu bokkul ak moromam ana tey looy wax si loolu. waaw maa ay loolu ñëpp xam nañ ko. Mhm. su ma jàppante ak moom mu ne gardien bi. bu tëjee tijji mu jàpp ma daan ma ne ko moo tal ay waxu gardien mais man taluma ko man li ma tal mooy li ma séq ak moom mooy la 14 ndax dafa yàgg taxaw fu ne di ma laaj pour bëri ak man mais la 14 dina leer du xeex du bëri maay duma maay daal incha allah. la 14 janvier comme ça ay tey liiro yu toog ndeysaan muy monument Guédiawaye dañuy am ndam mais comme li nga wax si Guédiawaye rek Balla Gaye mooy ndaanaan mooy li la wax ndaanaan bu daanoo foog coow li bari chaque samedi ak am ku daanu mais ki daanu mooy ndaanaan tey bu daanoon coow lu du bëree nii de yàlla xam na loolu parce que da naan ah def na fi lépp Balla Gaye mënul def lu mu deful woon mook Boy ñaan ak solo lu waa di sport sport moo demee noonu Boy Niang daan na Balla Gaye war na koo mën a daan parce que liggéey na lu tax mu war a daan Balla Gaye Balla Gaye mooy daanaan rek moo waral tey xam nga bu daanoo coow lay bari waaw mais nag xam nga yàlla baax na daal li si kanam rawuli bër bala 14 incha allah. waaw salaamaaleykum maa ngi comme sama mbokk journaliste yi benn question rek laa moom lay posé simple maa la dama gis sa wax yëpp da nga xam ne confiance maa la tamit man suma gis-gis maa jàpp na nga wàcc sa poids est-ce que tey xam nga combat bi tey fu mu lay yóbbu tey ji waaw maa ngi lay fay bu baax a baax c'est normal ma ànd ak confiance parce que li may wuti ku koy wuti boo amul confiance nga bañ ko wuti moo ko gën ndax boo duggee si dara te demeewoo si fit demeewoo si si jàmbaar jarul nga si dugg ndax bëri jàmbaar moo koy def ak jom comprendre li ñu war daal mooy xam nga la 14 ñu ñëw jàpp waa ji duma ko daan ko loolu kese la amul leneen. waaw si wàllu bi tamit. biir géej waaye comme ni ñuy jàppale yeneen ci jàppale boobu yoon tamit. waaw maa ngi sant yàlla mais des na. xaj na mooy li léegi rek Balla Gaye tey xamante ne tollagul fa du ñu naataabale suñu bopp képp koo xam ne doomu géejawaay nga rek te am war naa mën a jàppale géejawaay boo ñëwee jàppale ñuy xam nga waaw dañ soxla nañ ko quoi comprendre nga ñun gis nga fii fii nii nga nekk nii fii yëmbal la Amadou Xor moom moo nekk fii pourtant bu ko neexoon mu ne yëmbal laay représenté mhm. mais diggante fii ak géej waa benn la quoi mais terewul daf ñuy jàppale comprendre nga dañu taxaw saal bi gis na démb laay soo wax ak Malick bi ñu jàppale ma si loolu comprendre nga Xafoor Touré moom it jàpp na si affaire yi bu baax suma doomu nday ji nii booy see moo Xafoor benn lañ quoi mais Ahmed Aïdara moom it ñu koy xaar pour mu jàpp si mais jàpp ko si quoi comprendre nga te dafa war a ñëw waaw ay doomu géej lañ ñu ngi woo Pape Mama Fall bu baax moom it mu ñëw jàpp si xam nga di woo Abdou Aziz Ndiaye bu baax di woo Baye Ndiaye waaw Kor Ndiaye di woo waa Guédiawaye yëpp waaw di woo Racine Talla monsieur le maire mu ñëw jàpp si monsieur le maire Bara Gaye moom it ñu ngi koy woo pour mu ñëw jàpp si parce que ñun xam nga waaw ay doomu Guédiawaye lañ quoi te am na loo xamante ne nii bu ñu xew lee yi war nañ mën a def teew pour jàpp si ndax Guédiawaye la ñuy représenté Lat Diop ñu koy woo mu jàpp ci combat bu baax baax baax ñu woo Lat Diop soxla muy naanaan naanaan koo xam ne def na ay kuréel waaye Marley tamit def na ay kuréel Marley di naanaan day soxla bu ñu koy dégg ci communication dañ koy dégg lu ci bari mu naan dafa daan sama garaan naaru sokaas mu mel ne day ñëw bëree seeg yow ak revanche boobu tey sox mu ñëw war a bëree seeg Marley ak revanche boobu tey Marley lan la ñuy xaar ci moom bu sox ñëwee. Fallou maa ngi fay bu baax. maa ngi xaar revanche mu ñëw jël ci ko parce que moom moo taxaw wax ko nee na bu may bëreeg naa soxnaat bi si cumbukaay bi ma daan mu jooy jooy métti te incha allah la dina jooyaat bu neexee yàlla. dina jooyaat. loolu man la boo jéggee xaal. ba tëb des na la beneen tëb. dëgg la waaw na beneen jooy pour moom. macha allah mu des sama benn question. tey ñu ñu dégg ko moom ci communication moom Sokh mu ne Marley fi ma jëlee baaxul ñu ne ko lan moo tax loolu mu ne Marley damaa ñëw bëre ak ki nga xam ne mooy Franc bëggoon ci am victoire waa Pikine ñëpp ngeen ma nekk sama ginnaaw doon ma xaar ci combat boobu ma ñëw est-ce que tey Marley ñëw jëlaat ma loolu moo tax mu ne Marley fi ma jëlee baaxul est-ce que Sokh bu jógee ci Franc ñu daan ko mu ñëw war a jëlee wax ak Marley loolu est-ce que dina yomb. ak ay yomb. soox moom mooy kan nit kese la ci fanaan la jóge daanu tore daawaat incha allah gëm-gëm la bu nekk si man maa ko dàq bu bëri maa ko ëpp fit maa ko ëpp kàttan bu du rëy jàngal ma moom marle bi ñu daan gis terre bon bon marle bi ñu daan gis école 25 mbapat marle bi ñu daan gis terre xonke marle bu raw boobu sax mooy ñëw parce que mooy li ma rek combat bii nii dinañ xeex dinañ bëri man damaa mbapat dama daan toog vendredi samedi dimanche damay jël saaku teeb sama waa gaale pour ñu jël ceeb sax problème la bu Moussa la ñëw sama yaay day jël benn bu tas ko séddale ko waa kon bi yeneen yi mu bàyyi ko si biir kër gi man sox musuma dégg fu mu mbabatee man du benn de wallaahi du benn bëre yi sax du benn mais insha allahu rabbi bu la quatorze lay xam ne lépp dëgg la mar na mi ñu daan gis daa benn benn ak luur mar na am luur bu mel ni sox est-ce que mar na daf daan def ci luur toujours ko xaar lu ko raw laay def lu ko raw nee naa la gëm-gëm lañ am te gëm-gëm moo nekk suñu gëm-gëm boobu moom la demee ba keroog ñuy génn àdduna ak si lépp lu ñu mënti nekk nag nekkul si làmb kase rek lépp lu ñu mënti nekk gëm-gëm lañ ci demee ndax àdduna lépp jeexaat la loo jeexaatul rek doo ko am lislaam sax bi muy taxaw jeexaat moo tax ñu am ko kon dañuy jeexaat ñu ñaan daal yàlla suñu borom bi mottali jaamam yàlla ñu mootali bis ba rek ñu mu ñëw am si ndam lu sedd bi incha allah. maanaam sama kàddu gu moo ñu yar fi xaj na jàng bi mu jàng woon ak liggéeyam moo taxoon mu génn mais ku ko xam-xam ne doomu yëmbal la ku ku maanaam ku waa yëmbali safoo la quoi parce que nekk na koo xamante ne dipp bi mu ñëwee yëmbal am na beneen tànk bu mu taxawee ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel. ñëw naa def fi loo xamante ne nii tamit xam nga ñëpp yëg nañ ci seen bopp quoi ndax lii mu def nii yombul nga nekk koo xamante ne nii faale woo daraay politique amul xol bu ko neexoon du politique na dan naan nit boo demee ba tollu fenn mën dimbaliwaat sa gox bu ko neexoon du mu toog ak njabootam li mu yor mun na see dund ba dee yàlla yéex te du jeex mais nag dafa ne xaaral ma ñëw gëstu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo may waaw samay rakk samay yaay ak samay jarbaat ak ñëpp te bi mu ñëwee tamit gis nañ ko kon du ñu def loolu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak ñoom Malick Ba ak gaa yi nekk centre bii nii yëpp xam nga di leen ñaanal ak yëmbal gépp di ñaanal géejawaay gépp tamit di woo waa Malika waa Kër Massar waa Tivaouane Peulh waa Thiaroy xam nga ko ñu légal maa ngi woo ñëpp di gërëm Babacar Diop directeur maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko woo si combat bi xam nga moom mi ngi am mu mouvement jàppal ma jàpp doomu nday aliment xam nga maa ngi koy woo daal pour mu jàpp si affaire bu baax Babacar Diop jaajëf. waaw maa ngi balaa baax kii ñëwaat soxla pour yow mais Pikine aussi gën a soxla. wax na dëgg ñu ne ko gën a soxla foofu. waaw fa laa jëm si mais grand livre yaa ngi toog di conseiller sa rak sa jarbaat muy mar ne mais grand livre tey combat bi fan la leen toll yéen waa Guédiawaye ak la ngeen koy préparé incha allah grand livre grand bi maa ngi lay nuyu di la ziar jox su dina jox bu baax gis nañ tey géej waaye bu xew la da ngay sonn si bool tey man la bi nga xamante ni mooy bëri soxla kat incha allah nga ñëw toog si wetam tey bis bi ni ngeen koy waajee tey gëm naa ne commande day nga soxla. auzu bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi uh, maa ngi jaale bala maa wax dara damay njëkk a jaale sunu mbokk yi yi wàññeeku ci accident bi am ñu nekk ci dëj décret bi wàcc président jël ko muy trois jours tey soo gisee mu demee nii xam nga loolu moo ko waral ñoo ngi jaale képp ku ci wàññeeku di masawu ñëpp ñoo ngi masawu ñëpp di jaale ñëpp ndax dañoo nekk ci dëj waaw ñoo ngi jaale ñëpp àdduna bépp ñoo ngi lay jaale képp koo xam ne rek bokk nga ci accident bi wala nga am sa mbokk mu ci bokk rek ñoo ngi lay jaale di ba ci di président ñoo koy jaale di nuyu waa Guédiawaye gépp di nuyu waa marché bu bees di nuyu waa Alba Alba maa leen nuyu di leen gërëm di leen sant ndax xam nga ne tey lii am moo waral mu demee nii mu nekk saal tey su woon lool ca terrain ba nga ñuy fekk te tubaarakàlla macha allah maar la su jógee xale yi yëpp jóg xale yi albaa jóg xale yi géej way jóg xale yi yëmbay jóg fépp ndax allah maar lay xam ngeen ko kenn du leen wax kuy maar la wax naan ko chaque jour maar la yaa ay ci luur xale yi woy nan ko man ma wax ko te noonu la demee li nga koy ñaanal yàlla la ko cat te musal ko ci saytaane ak làmmiñ xale la waaye xale bu gëm boppam gëm boppam man duma ànd ak ragal man du ma ànd ak cuune. déedéet damaa ragal gàcce ñemewu ma gàcce déedéet du caaxaan barki Sëriñ Bamba Mbàkke li ma la du caaxaan man du ma ànd ak ragal duma ànd ak cuune du ma ànd ak como li ma koy ñaanal yàlla ko yàlla lafal cat te li may ñaan autorités yi dëkk Géejawaay laay ñaan man waxuma intermédiaire kenn jaar ci man jox ma dama joxal maa la déedéet damaa bëgg ngir yàlla ak rasuulillaahi ay dara yaay meeru Géejawaay yàlla fi yàlla teg li ma bëgg nga ñëw jàppaleel ma xale bi xale bi su jógee Géejawaay gépp ñëw yëmbal gépp ñëw marché bu bees sëñ Assane bàyyi laay daaru xan ñépp ay jóg caaro yi ñépp ay jóg li may ñaan ngir yàlla yàlla fi yàlla teg yaay meeru Géejawaay ñëwal jàppale Marley keroog wax na la ko nga ne ko naa ci jàpp woo na la ba sonn jëloo ko li may ñaan nga ñëw nga jàppale Marley ndax da koo soxla Géejawaay la ak Pikine te bëgguñu supporter euh, euh, soq yi ëpp la ñu dara Géejawaay ndax gaynde mer la fanaanoo te moom Marley mii am na lu mu denc man it am naa lu ma denc ah way du ma ko nëbbu non non am na lu ma denc sama xol te su lu euh, bis bu yàlla yóbboo la 14 ak jàmm la 14 ak jàmm ngeen xam loolu lépp dëgg la nga xam ne gaynde mer la fanaanoo la nga koy ñaanal yàlla fa ko li man daal li may ñaan autorité nekk Guédiawaye ñëpp nañ ñëw jàppale ko euh, Aliou Sall moom la fi yàlla tegoon muy maire xale yi ku ci mës a am combat la jàppale nekkatu fi nag mi ngi bay waar su fi nekkee Sénégal di ko wax ngir yàlla mu ñëw jàpp ci combat bi Lat Diop ñoo ngi lay woo gis na ni ngay jàppale xale yi Guédiawaye gis nañ xale yi ku am combat ni ngi leen di jàppale bëgg naa ngir yàlla ak Rasulullah Lat Diop directeur LONASE gis naa social yi ngay def géej a way gis naa ni ngay jàppale maa bëgg ngir yàlla ko la sama waay la laaj job sama waay la maa bëgg nga ñëw jàppaleel ma Marley dama bëgg nga jàppale ko ndax dañoo bëgg jënd ay billets moom soxla xaalis ay la ay billets la soxla dama bëgg ngeen jàppale ko jënd ko ay billets monsieur le maire nag yow la fi yàlla teg yaay maire de ville Amadou Hott mii muy wax nekkul maire u Géejawaay yëmbal la dëkk tamit tey xoolal lu rafet lii mu def dama ko naw yëkkati saal bu toll ni jox ko te mi koy jàppale pare di yëkkati alalam ba pare di yëkkati alalam di ko jox Amadou Hott loo bëgg yàlla la ko yàlla defal lii ñu def lii nga defal maar la dama cee kontaan te li nga bëgg incha allah rabbi di nga ko am nit du la ko tey am nit ku ne sa gox nga am nit ku ne fa nga dëkk nga am nit ku ne fa ngay fa ngay tiitaroo nga am kii maar su jógee ñëpp jóg su jógee ñëpp jóg damaa bëgg ñu jàppale ko autorité rek Guédiawaye ñu jàppale ko maa ngi ñaan ñëpp ku autorité ku dégg sama baat nekk autorité Guédiawaye nga jàppale maar la mii waxuma nag intermédiaire man ku ma woo laaj ma ni man numéro am ma jox la ko nga jàppale ko man loolu laa soxla ndax moroomam nawleem lay bëreel te nawle waru koo yóbbul dara ca stade ba te borom jom la am na fulla am na fayda gëm na boppam du ragal nee naa la man du ma ànd ak como man du ma ànd ak ragal déedéet damaa ragal gàcce moo tax te bëgguma defet yàlla ko yàlla suturaal gi li na ngeen taxawoon nii gis naa ko xale yu Géejawaay xale yu marché bees xale yu alba xale yëm lii tey xam nga ne su dul woon dëj bi tubaarikàlla maa sha Allah fii kenn fi xaj tey bees ndax xam naa ni fonk ngeen combat bi te bëgg ngeen combat bi ñoo ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ba dé wéy naa daal dimanche yé samedi incha allah rabbi la 14 xale yi ñëpp yéen ñëpp ngeen jóg teel a dem istaat dooleel seen mbër mu dugg ci biir géej wone fulla ak fayda at jom ndax loolu lañ ko xamee question ba léegi tontu woo de. ban question. Guédiawaye si combat bi. yow loolu dafa jar a laaj man mii loolu day question man kay li ma la wax leer na c'est clair man mii woo autorité yëpp pour ñu jàppale ko xam nga ne bis bi dafa ñoo ñor bis bi dafa am fu ko teg bis bi dañ ko fonk. bis bi dañ ko fonk bis bi dafa am fu ko teg bis bi dafa ñoo ñor moo tax may woo autorité yëpp ñu ñëw jàppale ko may woo autorité yëpp nekk Guédiawaye ñu ñëw jàppaleel ma Marley ndax Marley borom jom la. bis bi daf ñoo ñor dimanche passé dañoo duggoon Pikine mu am na mu demee la 14 yàlla na ci yàlla yóbboog jàmm yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ba tey ba ba tey li ma naqari man jeex ko déedéet xam nga ko jarul ma koy wax xam nga ko man daal essentiel la 14 maa ngi bëgg yàlla na ni yàlla may ndam lu sedd guy ci kaw soq ndax bëgg naa autorité yëpp nag ñu ñëw jàppaleel ma maar la man loolu donc laa amuma dara lu may wax lu lool ndax tey ji loolu lan soxla loolu la soxla maar na su gesoo gis tribune mu fees dell mu xam ne yëpp ay fan salam ah dina def ba def lu mu mënul nit ki lool la am nit ku ne fa nga dëkk nga am ñun géejawaay la ñu am géejawaay la ñu tuddoo damaa bëgg autorité ñu ñëw jàppale ko ndax combat bi daf ñoo ñor combat bi daf ñoo ñor daf ñoo ñor damaa bëgg ñu ñëw jàppale ko daa duggoon parcelle am na mu demee ñu daan jël ñu rëy boobu nga xamante ne mooy feefam di arène nationale tey mu war a duggal arène nationale waa Pikine nar ko yabaat mu ni ko boo ñaa ba ki démb la fi jógee am na mu def géejawaay tey mar la nga war bëre moom la 14 janvier nga war a lan nga fi defee wala war sa bopp est-ce que tamit combat bi dina yor à 100 pour cent ma ne ma ne moom la mu jëlee parcelle moo ko waa parcelle la ñun géejawaay la ñu wax géejawaay lañ dëkk su dimanche samedi di leen xam ni soq mi euh, soq am na bis te bis bi lu mu ko fonk ñun ñoo ko gën a fonk tey jii xam nga suñu am ba départ da nga gis mbaru géej waaye yëpp ay teew yëpp ay teew waaye tey di mu demee dëj bi moo waral mu demee nii mu defee ko nii waaye tey suñu woon euh, dëj bi open de presse lay làng fii képp kuy mbër géej waaye ñu ko fi gis waaye li ko waral dëj bee tax suñu samedi de samedi daal yàggul yàlla nañu yàlla suturaal ba samedi jàmm incha ñu ñëw. fecc fecc mi bëre bi xeex xeex bi daan daan bi ñu ñëw génne way alba féete ko nga xam ne man la asulu waaw man li may tàggoo li may tàggoo moo Ndiaye directeur maa ngi lay woo pour nga jàppaleel ma maar la ci combat bi kooku yow sama waay nga xam nga ma xam moo Ndiaye directeur sama waay la borom maa ngi woo nga jàppaleel ma maat la ci combat bi bu baax a baax xam naa di ko def ndax sama waay ndax combat bi dafa metti te dafa yàgg te vraiment combat bi daf ñoo ñor combat bi metti na yàgg na moo tax te combat bi daf ñoo ñor combat bi daf ñoo ñor de combat bi daf ñoo ñor de keroog am na ku ne ma ah dangay génn da ngay génn Pikine duggaat Pikine ma ne ko waaw waaw maa ko wax dañu duggaat Pikine Pikine ñooy ñan bala 14 euh, gis nga euh, coow li bari na lool fan yi liiru li waral jooy li waral jooy li waral jooy li waral jooy sama xol fees ba pare ma am mbetteel am lu ma bett ma xam ki doon bëre mooy kan di ndaanaan kullu faddalin di sama rakk man bis li ko maar la waxee ndaanaan su daanoo foog coow la bari man li may jooy maa ko xam ku xamul nag xamul waaye li ma doon jooy man maa ko xam man maa ko xam jaruma koy leeral kenn jaruma koy leeral kenn li may jooy maa ko xam mbër mi xam naa fi ma teg te moom xam na fi ma ko teg waaw mbër mi xam na fi ma ko teg te moom xam na fi ma ko xam nga ñu bëri dañ naan jooy àggu ko fenn ndax gis ñu rongoñ man noonu laay jooyee man noonu laay jooyee man su may jooy jooyu xol laay jooy jooyu xol te defet bi dafa maa bett daf ma metti daf ma bettee maa sotee barki Sëriñ Bamba Mbakke daf maa bett daf maa bett waaye nag ba samedi ak su samedi sama rakk dina ma fay lépp sama rakk ji samedi dina ma fay lépp yàlla na ko yàlla musal ci cat yàlla na ko yàlla musal ci làmmeñ yàlla na ko yàlla musal cat nan ko instant yi soxla nan ko jërë ngeen jëf waa Alba maa ngi woo rek moo jaay directeur baax a baax pour nga ñëw jàppaleel ma sama rakk ji ndax daal bis bii soxla nan ko Amadou Hott ñoo ngi lay gërëm bu baax de sant ndax ni nga jàppalee Marley gis nañ ko su la neexoon li nga def nga bañ koo def waaye nag nit da ngay bëgg sa gox bëgg sa réew amuñu lu dul Géejawaay amuñu lu dul Géejawaay ñun Géejawaay la ñuy tiitaroo Amadou Hott pour yëmbal lay présenté yëmbal lay présenté te am na auto yi nekk fii Géejawaay ah nañ ñëw jàppale maar la te yàlla tax dañ koo war a def ku ko def dañ ko war a def ku ko def dañ koo war a def ndax doomu géejawaay la géejawaay la pare lay présenté jërë jëf waa Alba jërëjëf waa géejawaay jërëjëf lan non lii du forme du forme de non xol laay waxee xol laay waxee moom sama xol moo fees jërëjëf champion dañ man de lamb ji nga xamante ni yaa ngi koy bëri lëkkaloo bi incha allah supporter ban baax bu bees ak lu neex lan ngay yëngati instant parce que instant dafa la yëngu mais avant si loolu dama gis na sol benn t-shirt ki nga sol nii kan la. waaw kii ma sol nii suma jërbaat moo fi nekk ak suma grand Cheikh Thiam nekkoon suma tribunal yàlla borom jël àdduna ak suma doomu nday Diouf ku ne xam ko ak si ginnaaw nag ki fi nekk mooy suma waykat oh. waaw muy hommage en Ndongo Lo mu ngi ko sama biir xol waaw daf ma yàgg a yees lu bari Ndongo Lo fu ma toll moom laay mooy suma waykat di ko ñaanal yàlla xaare ko àddina waaw xaare bépp ku nekk daal biir suuf daal yàlla yàlla xaare àddina jaajëf waaw ñu wax ko muy Marlène muy grand Cheikh Thiam. ñi la wër mooy ñoom Assane ñoom Cheikh Ibrahima ñooy tëggal ndax bu Cheikh grand liiru du wër la nga ngay bëre grand Cheikh Thiam gisoo ko lan ngay sentir booba. waaw dinañu marqué trop ndax boo xoolee suma combat yu paase moom moo toog 16 moom moo toog 16 ma daan mu jub similé comprendre nga image boobu ba tey su ma koy xoolaat day def lu bari nii ngay wax nii nii sumay garaanam Assane moom moo ñu yar yàgg ñoo jox cent franc yàgg ñoo jox fukki dërëm yàgg ñoo jox kii suñu grand loolu tay Gabar Singh suma mag di suma xarit moom it maa koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm suma tambour motor séyu la nga xamante ne nii xam nga du ma day jug di def alalam ndax man kii nag moom suma gaañ la booy sëy moom dañoo defandoo lu bari foondoo xam nga defandoo lu bari daal ma taxawaay bu am si man taxawaay boobu tamit moom la waa Géejawaay am si man waaw seen naa fi tay yu bari xoolal bàyyi bàyyi suma doomu nday xam nga waaw di bëggee suma grand yi fi teew di bëggee ñëpp waaw di sant nag xam nga di gërëm waaw di sant di gërëm ku si mel ni Ousseynou Ba international Ousseynou Ba international borom Olympiakos maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di gërëm Serigne Diouf koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm grand papa yi état su grand papa yi maa koy gërëm bu baax di gërëm Tafaya Douane Tafaya Douane maa ngi koy gërëm di gërëm Baye As Douane di wax ne ñoo ñoo jàpp si combat bi Lamine ak Alsane ñu ngi Italie borom Milan ak Inter xam nga maa ngi leen di gërëm ñoom ñaan bu baax Lamine Naar maa ngi koy gërëm di gërëm waa leen di gërëm bu baax Keba Thiam su ma rax moom mi ba Espagne maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax Davos si la Davos suma grand suma xarit maa ngi koy di gërëm Pape Dieye di gërëm Laye Dieye di gërëm ñi nga xamante ni dañuy sonn si man bu baax a baax a baax parce que géejuwaay ñooy sonn si man àdduna ñooy sonn si man di gërëm nag Malick Ba moom xam nga di ko remercier si waaw taxawaay bi quoi waaw di gërëm xam nga Pape waaw suma rax Pape Thiam koy ñaanal moom xam nga yàlla doolu ko wér quoi waaw di gërëm géejuwaay gépp di gërëm Moussa le maire Bara Gaye koy gërëm di ko woo tamit pour mu ñëw jàpp si combat bu baax a baax a baax di woo ay Aïdara xam nga géejawaay ji jàpp si combat bi dafa bari waaw autorité yëpp maa leen di woo ñu ñëw Abdou Khafour Touré moom jàpp na si affaire xam nga ñu koy sant bu baax di ko gërëm quoi di woo monsieur le maire Racine Talla Badou Faye maa ngi woo Badou Faye monsieur le maire moom it koy woo mu ñëw jàpp si combat bi bu baax Pape Mama ñu koy xaar pour mu ñëw jàpp si affaire yi quoi du woo géejawaay gépp daal. waaw xam nga xam nga benn drapeau bi ngeen di bëri muy drapeau police nationale ngeen di bëri te drapeau boobu yéen a koy bëri tey drapeau boobu lan la la jaral parce que police bi kuy bëri drapeau du yomb. la kon drapeau boobu buñ ko tegee damaa war a rey sama bopp ndax man doomu soldat la sama papa dem na mission ñaari yoon. barke Rasulullah waaw sama papa dem na Tunisie. dem na Égypte dem na mission ñaari yoon kon bu ñu tegee drapeau man dama ko war a rayante pour indi ndam li géejawaay couleuru géejawaay bi ci kaw rek lay jëm ci kaw rek du mës a wàcc ndax gaynde gi mënuñ tàmmal loolu Balla Gaye jël coalition yi nii sax boo ko boo ko commencé gis Balla Gaye moo xëcc loolu xam nga bu njëkk géejawaay da doon bëre seen biir Pikine da doon bëre seen biir mais Balla Gaye moo ñëw indi couleur géejawaay bi fu mu toll naan géejawaay géejawaay géejawaay ñu dem ba géejawaay bëreetuñu seen biir ñu dem ba nag léegi Pikine tamit bëreetuñu seen biir parcelle yi noonu ndax yàgg ngeen a gis ku nekk di bëre Modou Lo Papa Sow xam nga Ndiaye Malick bëre naa ak mbëru école de Mor Faram kon loolu bu demee ba jeex bi grâce à Balla Gaye te Balla mooy làmb

waaw d'abord damay jaale ñi nga xam ne ñoo def accident bi di ko jaale àdduna di ko jaale président de la république di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax wax ji warul dugg di ñaanal suma rek di ko ñaanal ndam lu sedd bi te incha allah dama koy am fu ma daan jaar laay jaar barki sëñ Fall la may am ndam tax ma ne ko dugub ku ko soog ko wàllu ko. Bırak da gibi bir paça, bırak da gibi bir paça.